asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci waxtaanee ajuma ju jot lépp lu jël ci wàllu wérgu yaram lépp loo xam ne rek ñal na wàllu wérgu yaram ñu koy waxtaanee. ci seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy ci am moom ngi nekk sage-femme nekk itamit euh, koo xam ne mu ngi bokk ci euh, cadre des religieux pour la santé et le développement di sd euh, nekk ak kuréel goo xam ne nag ay nitu diine ñoom ci ñoo ci nekk di yëngu ci loo xam ne jëm na ci wàllu wér yaram ñu may ko mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi balaa ñu dugg ci waxtaan bi madame Thiam ñu ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum Oulimata maa ngi lay fay. maa ngi nuyu tamit mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu euh, di ziar kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm fan wu gudd ànd ak wér di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan bépp balaa bu fi nekk ak musiba ak mbas yal na ko yàlla teggi teggil ko ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi ci nekk feebar yal na leen yàlla wéral ñi ci nekkul tamit yàlla bu leen ko yàlla jox ci barke Seydina ñu koy jaajëfal bu baax Amy Ndiakh bi ci ñaan yi euh, di euh, gërëm itam ñi nga xam ne ñoom la àndal nekk équipe kon euh, tey ji ñu nar waxtaanee sujet boo xam ne bu am solo la di planification familiale ñu gën ko xam ci ARNEF donc euh, mais balaa loolu euh, dañuy ñëw ci cadre bi nga xam ne ci nga bokk moom mooy cadre des religieux pour la santé et le développement tey euh, nga nekk sage-femme lan moo la war a mën a boole peut-être ak cadre boo xam ne ay ay oustaz a fa nekk ay imam booy booy seet ci lu ci lu ëpp. waaw cadre bi moom li ma ci boole mooy dama yëngu ci mbirum diine man tamit. Mm-hmm. parce que dama nekk di taalibe. di ànd ak ay way diine yor tam ay association religieuse di ci yëngu donc loolu moo ma booleek euh, cadre bi boolee tamit cadre bi di wax tamit ci mbirum santé te comme man tamit sage femme laa euh, ma ànd ak waa cadre bi rek euh, ñu ànd di liggéey. Mhm. loolu moo ma dugal ci cadre bi. ndax mhm. ci këri diine yi laa nekk man tam di liggéey. Mhm. depuis combien d'années nga nekk ci ci cadre bi di ci yëngu. cadre bi dëpp bi ñu ko sosee ba léegi en 2014. maa ngi ci cadre bi di ci yëngu. donc ci membre fondatrice yi laa bokk euh, bañ koy sos euh, maa ngi fa woon ba ki tey jii ci kàttanu yàlla. Euh, tey ñu gis ne li nga xam ne mooy sujet ARNEF di planification familiale lu ci bëri euh, blocage yi ñi nga xam ne ci ñoom lañ koy seetlu mooy nitu diine yi en général ñoom ñooy wax que ni diine nanguwul ngay espacé yu demee noonu daal di ci indi ay ay réticence euh, tey li nga xam ne moom mooy mbir moomu nekk benn paradox mu dem ba am benn ay religieux yoo xam ne ñoom dañuy yëngu pour cette cause là yow naka nga jàngatee mbir moomu waa xam nga il faut que ñu xam lan moo tax religieux yi ñoom seen bopp jóg ne ñoom dañuy wax ci mbirum planification familiale contexte bi parce que dañoo gis ne jigéen ñi li ñuy loru ci njurum doom dafa bari bi ñuy bi loolu amee nag bi religieux yi jege waa ministère de la santé gëstu fa ñu xamal leen ne leen kat nef bi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy nef su fekkee nef bi wàññeeku na loolu mën na wàññi ndeeteelu yaay ak doom religieux yi ne ñoom tam ay religieux lañu te defe naa religieux rek du rek jël sa kurus toog di wér wala yor sa sijaada di julli suba ba ngoon donc problème de société yi war na leen a ñor war nañu xool lan moo am ci société bi loo xam ne loraanga la ñoom ñu war koo xeex ci la ki ñuy wax sëñ Saliou Mbacké bu sëñ Moustapha Bassirou daal di créer groupe bi ànd ci nag ak këri diine yépp këri diine yi ci Sénégal yépp ku ci nekk am nga ci représentant ci biir kuréel googu mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag li tax ñu ñu religieux yi ñu jóg ne nañu xeex nef parce que yaa ngi wax léegi planification familiale mm-hmm. mais xam nga planification familiale ay pàcc la mm-hmm. donc am na pàcc boo xamante ne bii dafay xeex jigéen ñi nga xamante ne ñi dañuy am feebar ci seen néegu sëy am na pàcc boo xamante ne bii dafay xeex jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk waroon a am doom amuñu doom. Mm-hmm. am na pàcc boo xam ne day xeex maanaam ñi nga xam ne dañuy loru mortalité maternelle bi. Mm-hmm. pàcc beneen bi mooy espacement des naissances. Mm-hmm. ñun nag religieux yi espacement des naissances lañ jël di ci waxtaan. te lan moo tax ñu di ci waxtaan ndax li tax ñu di ci waxtaan mooy nef nekk na loo xamante ne la baaxul. nef baaxul képp koo xam ne ku ne nef baaxul yow sax baax baaxul baax na yow sax baaxul. parce que def nekk na loo xamante ne lii bu fekkente ne bu ñu koy jël ca njëlbeen ga rek yàlla subhaanahu wa taala su fekkente ne dafa euh, jël euh, jigéen mu war a ëmb mu nekk ëmbul jigéen joo xamante ne nii dafa nekk en état gynécologique ëmbul dara jotu ko kooku butitu mi ngi mesurer 7 centimètres. Mm-hmm. léegi ki nga xam ne butitu njurikaayam mi ngi mesurer 7 centimètres bu yàlla subhaanahu wa taala defee mu ëmb su ëmbee butitu njurukaay boobu. 7 centimètres boobu war na taaweeku bu mën a contenir doom ji nga xam ne bu juddoo dina mesurer 50 centimètres kon xam nga ne kooku dafa war a taaweeku mm-hmm. léegi taaweeku boobu muy taaweeku nag fa muy taaweeku xam nga xeju fa parce que du place am parce que mm-hmm. moom place mooy fi mu occupé muy 7 centimètres 7 centimètres yooyu mu mesurer doom ji juddu doom ji sosu nekk ci biir di màgg màgg googu muy màgg dafay ànd ak butitu njurukaay bi muy taaweeku mm-hmm. butitu njurukaay bi nag buy taaweeku moom dafay puus ay cër dina puus sebenukaay bi dina puus cabinet kaay bi dina puus euh, artères yi dina puus euh, kii bi euh, nu mu tuddati ay ans yi maanaam butit yeeg yëpp dina leen puus mm. dina dem ba puus sax estomac bi bu demee ba doom ji màgg ba nga xamante ne mu ngi toll ci weeram sax da ngay gis jigéen ji commencé naan damay xër ñeeñ ñi su ko mm. defee mag ñi naan kawar gi kawar gi wér mm. mais juumuñu sax ndax booba day fekk doom ji màgg na ci biiru yaayam mat na ba am na karam donc ñoom mënuñu expliquer peut-être compression bi nga xamante ne bi doom bopp doom ji mi ngi koy def ci estomac bi mais dañ koy expliqué ñoom kawar gi la. Mhm. donc loolu mooy doom ji mat na. léegi nag yooyu muy puus nag moom moo tax sax ñuy wax jigéen wérul. Mhm. boo déggee ñu ne jigéenu wérul jigéen wérul looloo ko indi tur woowu moo ko indi. Mhm. ndax li tax jigéenu wérul am mooy bu loolu amee jigéen ji danaan damay saw saw bu bëri. jigéen ji bu ëmbee dina seere jigéen ji bu ëmbee ay tànkam dina sadd jigéen ji bu ëmbee ay wetam dina metti jigéen ji bu ëmbee dina xër ñeeñi jigéen ji bu ëmbee dina am xel muy teye dina wëcc te loolu yëpp effet bi nga xamante ni bii ëmb ba mi ngi koy def ci biir bi loolu lay def. Mm-hmm. bu yàlla defee nag ndaw si judd wasin ci jàmm ak salaam bu boobaa nag ci la problème yi mm-hmm. ndax su wasinee ak jàmm salaam dafa war a noppalu ñaari at pour que loolu yëpp taaweeku woon. am ay jafe-jafe mën a delluwaat. Mm-hmm. léegi nag bu xaarul ñaari at yi delluwul lan moo ko mën a jot. li ko cay jot nag. loolu moom tax ñuy xeex nef ndax bu fekkee jigéen ji dafa nef mu wasin am juróomi weer mu ëmbaat su ëmbaatee ëmbaat boobu mu ëmbaat nag loolu mooy indi jafe-jafe yi ndaxte day fekk boobu loolu yëpp delluwaatu place bu tuti njurukaay bii tamit delluwaatul na mu waroon a dellu su ko defee buy wasin mën na dem mu def hémorragie maanaam muy wasin sotti deret bu baree baree bari deret boobu muy sotti mën na ko indi loraange ba bu ñàkk ci bakkanam su fekkee ñàkk ci bakkanam sax ba mucc ci deret yooyu mën na ci jëlee ay feebar parce que anémie bi mën na ko jural cardiopathie mën na ko jural ay insuffisance rénale mën na ko indil yeneen i jafe-jafe mburu mm-hmm. loolu tamit nan na wasinte heure bi du jot mën na def accouchement prématuré maanaam dem ba am juróom ñaari weer juróom benn weer mu judd doom ji bu juddoo mën na loru comme mën na dund mais bu dundee day dund ak ay jafe-jafe ku ne xam na ne tey jii prématuré yor ko fii ci Sénégal dina metti mm-hmm. parce que crèche yi fi nekk doyul donc da ngay wër hôpital yi ba sonn pour mun a am foo dugal sa doom pour mu continuer fa ak màggam mm-hmm. su fekkee amoo moyens yi doo ko mën bu ca loolu amul tamit doom ji bu juddoo doom ji juddu non seulement dañ koo nef mu tuuti mais ki nga xam ne te moom lañ def tamit mu tuuti moom tamit day day ji day daal di yor ñaari liir. Hmm. kële day daal di wéré di. bu defee kële croissance am sax day am jafe-jafe. mu ngoog croissance am am jafe-jafe ndax su day dakk. waaw day lompoñ mën na nekk ab malnutri. Hmm. su ko la mu waroon a am ca yaay ja ci affection yooyu amu ko kii juddu yi tamit. kële dèjà wéradéem tax na yaay ji mi ngi lijjanti kii ak yaay ji nef gi mu nef jàpp yaramam mu doon ko feebar. Hmm. su ko defee yaay ji day wopp doom ji juddu wopp kañ kañu nef wopp baay bi wopp mm-hmm. laaj ma lu tax baay bi di wopp ndax booy yóbbu sa doom ah, hôpital hôpital yaa ngi yóbbu uh, ndey ji hôpital hôpital doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg chaque jour nga dem demander permission parce que nelaw euh, euh, da ngay yóbbu sa doom hôpital wala sa jabar. te poche bi du ko fekkee mm-hmm. bu boobaa wopp mën na caa jur ndóol mën na caa judd. ko defee nag mu indi ay problème te mm-hmm. boobaa société bi yëpp ñooy ñàkk. Mm-hmm. mu mel ni kon explication bu beneen explication nga ci indi parce que tout le temps dañuy dégg euh, ñiy défendre planification familiale peut du ñu ñëw en profondeur comme yow ni nga expliqué ci début yeeg yooyu donc loolu c'est très important te je pense que communication boobu bu ko doon mëne ci mbir mi peut-être avancé woon na bu baax a baax ci wàllu euh, planification familiale. mais léegi euh, su weesoo li nga xamante ni moom mooy euh, ku jigéen ki ak wérgu yaram ak yooyu xale beek yu demee noonu gis nañ ne wàllu planification familiale terewul ba tey yenn zone yi. yenn zone yi surtout zone rurale yi da ngay gis ne foofu réticence bi dafay dafay bëri bu baax a baax réticence dafay bëri euh, est-ce que tamit côté boobu euh, am na ay peut ay jàngat yu ngeen ci jot a def walla gis ngeen ne peut-être tey jii am na ay avancées yu ci am xam nga am na ñoo xam ne dañu ñàkk xam walla ñu ñàkk dégg sax seen diine parce que defe naa ne diine li mu bëgg mooy bien-être wér gu yaram donc diine diine xeex wérgu yaram wérgu yaram mu ndey gu yaram mu doom wérgu yaram donc am na ñoo xam ne gis-gis boobu lañ ci am dañuy wax ne lislaam nangu ko point barre mais am na ñoo xamante ne ñii ñoom fiiraange moo leen ciy dugal parce que dañ naan seen soxna yi bu ñu bu ñu planifié mën nañu dem feneen mën nañ taxawaal wala mën nañ def leneen loolu day am am na ñoo xam ne nag ñoom bëgg a tere rek di tere am na góor ñoo xam ne noonu lañ mel boo ne leen sax maa ngi dem jëli ji un million bi fii sax il faut ñu tere la mm-hmm. parce que noonu lañ mel loolu dafa am ci ay nitam mais yooyu yëpp ñun dañ koy jàngat dañuy dem di waxtaan ak population yi te man de demaguma foo xamante ne waxtaan nañ fa ak nit ñi ba ñu wax ni lii ngeen wax nii du dëgg mm-hmm. wala lii ngeen wax nii ànduñu ci mm-hmm. ñun nag dañ ni nit ñi nañ noppalu ñaari at waxuñu kenn mu def limitation de naissance parce que loolu ñun dañ koy bañ mm-hmm. limitation de naissance l'islam bëgg ko yàlla àndu ci ñun duñ ko nangu te nit ki mën na am fukki fukki at ak juróom-ñett am fukki doom te du du te ndax bu fekkee bu wasinee noppalu ñaari at mu ëmbaat diggante fi muy wasine ba ëmbaat dina am ñetti at donc buy jur doom ba am fanweeri at ak juróom ba ñeen ba am ñeent fukki at kooku mun na am ay doom yu wér moom mu wér te du nef mhm. donc ñu dañ ne nit ki na noppalu noppalu ñaari at mais ci kaw noppalu boobu dañ ci ànd ak seen borom kër parce que itam waxuñu kenn mu dem di planning te tàgguwul borom kër waaw loolu tamit ñun ànduñu ci da tàggu sa borom kër man lee léeg ku ñëw fii si clinique bi sax su fekkente ne sax tàggu sa borom kër sax dama naan la jox ma sa téléphone jëkkër ma wax ak moom su ko defee damay woo borom kër gi téléphone wax ak moom ne ko sa soxna kat dafa war a noppalu parce que lii ak lii ak lii moo tax te yàlla euh, seede na ma ne ñaareel képp koo xamante ne kii moom laa ci jot a waxal rek kooku du ci du ci am benn problème wala mu am ci benn difficulté donc loolu dafay am kon nag euh, ñu di ci sant yàlla bu baax a baax ndax nit ñi tam duñu dox suñ leen expliqué dinañ dégg dinañ xam kiy wax dëgg ak ki nga xam ne day wax ngir bakkenam mm. ñun nag waxuñu ngir suñu bakken mais dañuy wax pour wér gu yaramu yaay ak toom mm. ñoom ñu mën a wér ñëpp wér société bi am jàmm ñëpp am jàmm. loolu daal mooy li nga xamante ne lii ñun loolu la ñuy dox di ko wax mais nag dañ ci am ay jafe-jafe. parce que nit ñi dañuy dañuy d' accord ñii duñ d' mais ñi dul d' ñoom am nañ seeni raison ñi nga xam ne d' accord ñu tamit am nañ seeni raison mais ñun nañ fexe ba jéem a waxtaan ak nit ñi delloo si leen ngir ñi d' accord ci li nga xam ne mooy njëriñal askan bi yëpp. Euh, mais li nga xam ne mooy méthode contraceptive yi parce que euh, risque zéro amul donc am na ci peut-être euh, am na tey ay méthode contraceptive yu bëri mais du yëpp enfin du boo ci def rek daf lay assurer que ne doo ëmb donc mun nga ci def avec euh, une marge yoo xam ne chaque fois daf ci am est-ce que mun nga ñëw ci ci ci loolu un tout petit xam nga su ma déggee. Mm. après li euh, du ñu def planning. sama jabar du def planning parce que bu defee planning dootul mënatee am doom man dama naan kii du religieux déggul sax diine ndax defe naa ne yàlla subhaanahu wa taala téere mënu koo téye pilule mënu koo téye appareil mënu koo téye jadel mënu koo téye heure bu nammee sos doom da koy sos donc loolu moo tax risque zéro am kon nag ki wax ni risque zéro amul kooku sax ka defar kii ba sax xam na ne am soo du way diine mais xam na ne. yàlla subhanahu wa taala bu naree sax su doom da koy sos kon nag risque zéro am mais li ñuy wax ma des fois li ñuy wax moo may xaw a yéem parce que da ngay dégg ku ne planning bi moo ko indil ay tànk yuy metti da ngay gis maa ngi keroog benn vidéo buy circulé mu naan cancer bi pilule yi jigéen ñiy naan deret bi dajalu seen butitu njurukaay loolu mooy indi euh, cancer yi mm-hmm. nee na bi bu funki bi jigéen ji di funki moo tax fois bi du mën a capter suukar bi ni mu ko war a capter loolu moo tax ñuy diabète ma ne moom xamul dara parce que bu xamoon dara du wax loolu gis nga règle ma ne ko ma koy laaj rek moom moomu sax ñi nga xam ne dañoo wasin gisuñu règle ba am ñaari at di nàmpal te gisuñu règle ana deret jooju fan lay dajaloo ñi nga xamante ni ñii dañoo ménopausé ana deret jooju fan lay dajaloo léeg-léeg gis jigéen joo xamante ne ëmbul palaaningul deful dara sëyul sax di jëlal ay ñeenti weer juróomi weer gis règle parce que dafa am ay jafe-jafe hormonal mm. donc loolu du moom mooy deret boo xam ne dafay jaxasoo ci sa biir euh, effet yi nag méthode yi nag bu ci nekk am na effet secondaire mais ñun liñ leen di wax dañ ne ne ngeen noppalu ñaari at yaa xam nooy noppalu yow xam nga ne xël la jigéen ju toog ñaari at sëyul ñu ne jëkkëram ne na ko yóbbu mu dem toog kër yaayam def fa ñaari at bu ñaari at yi ñëwee matee mu ñëwaat pour planning loolu sax am na effet secondaire effet secondaire bi mooy boo ñëwee fekk fa wujj boo ñëwee fekk fa wujj. xanaa moom moo gën a garaaw. waaw soo fa fekkul wujj kër ga nga ne danañ la siis a siis a siis yaa say doom ba nga am ay jafe-jafe kon nag xam nga ne loolu effet secondaire la ña ngay fekki tamit coono ba nga leen di teg effet secondaire la. kon nag effet secondaire amut ñàpput fenn mm. léegi nag ma dawal tuuti rek ci méthode yi. ak règle comment ça se passe gis nga yàlla subhaanahu wa taala léppam da koo réglé doomu jëmmi doomu aadama dafa réglé ba nga xam ne gis nga règle li nga xam ne moo koy doxal ci cerveau bi la dafa am lu ñuy wax hypophyse hormone hormone yooyu ñoom ñooy hormone yi réguler kii bi mooy sécréter hypophyse bi ak ovaire yi pour que règle mën a am ovaire bi mooy former ovule ovule boobu mooy dem ba nekk sosu nekk doom su fekkee yàlla def na nag over bi ubbeeku na génn na ovule bi ba ovule bi dem war a tax tase jeeg spermatozoïde bi bu boobaa yàlla subhaanahu wa taala fonk gi mu fonk doomu aadama day lal ci bitutu doom butitu njuru doom euh, butitu njurukaay bi ab danteel bu nooy nepp ne ko dama am ngan gu ma yaakaar mu ngi ñëw gan googu bu ñëwee nañ ko teral nañ ko lalal fu nooy mu tëdd fa Mm-hmm. muy li nga xamante ne ni ovu bi nga xam fécondé nañ ko mu war a ñëw def nidation ci biir endomètre mm-hmm. kooku bu ñëwulee lal ba day laal laalleeku loolu mooy règle mm-hmm. su ñëwee nag règle am léegi nag loolu mooy indi nag effet secondaire yi parce que problème hormonal yooyu dérèglement hormonal yooyu mooy indi léeg jigéen ji day gis règle léeg-léeg du gis règle te loolu ñiy jël hormone lay gën a dal parce que bu fekkee yaa ngi jël hormone mën nga gis règle mën nga bañ a gis règle ndax yi ngay gis sax c'est des règles ndax ovulation amatul ovulation bi la ñuy bloqué suñu bloqué ovulation nag règle dootu am léeg-léeg nga dégg ku ne dafa jël appareil appareil bi ñu ne am na ñuy dénigrer ne dafay def avortement mais sooy avorté doom ngay avorté su fekkente ne doom sosoogul avortement mënu fa am ñaareel ba appareil boobu noonu. dafay tax spermatozoïdes yi du ñu mën a euh, gaaw pour mën a dem fekk ji euh, ovule bi donc kon xam nga ne kon lëkkaloo amul ba doom di am. Mm. kon nag te bu appareil bi amee sax. ba doom sosu sax processus boobu bu xasee ba déclenché wu yàlla su boppam subhaanahu wa taala bu xasee ba déclenché processus boobu dara du ko arrêté loolu mooy indi nit di ëmb ci kaw kaw appareil te bu nit ki ëmbee ci kaw appareil bi du ko wàññi dara dañuy bàyyee noonu appareil bi bàyyee noonu ëmb bi mu màgg su juddoo doom bi juddoo ñaareel sax dangay gis doom ji euh, euh, appareil bi ci placenta ba lay nekk mm-hmm. mais dangay gis ku ne placenta doom ji dafa indaale ci loxoom euh, appareil bi am ñu ne ci bët ba la am ñu ne ci tànk ba la yooyu de man mosuma ko gis j'ai fait 30 ans de service mais man mosuma koo gis gis naa nag ba tàyyi ku nef rey mais man mosumaa gis ku planning rey tey tamit su fekkente ne yow yaa ngi jël euh, méthode di ko def defe naa ne war nga mën a dem ci biir bu fajukaay yi nga def ko fa soo fa amee jafe-jafe war nga delluwaat ci bu fajukaay bi jafe-jafe boobu ñoom ñu résoudre. justement problème bi foofu la parce que da gis benn euh, faatu bu nekk à côté dem ci marem marem ne ko ah man de bii laay utiliser moom mu jël boobu. fekk ne bokkuñu. waaw ñun jàngaluñu loolu. li ñuy jàngal mooy nit ki bu ñëwee ne dafa bëgg a def planning da ngay waxtaan ak moom laaj ko lu mu ca xam ba pare. Mm. xam fan la degré de connaissance am toll. bu la nee lii laa ci xam lii laa ci bu dee lu la nga tegg la erroné ne loolu lii la. wax ko la cay dëgg ak la ca am ba pare ne ko nag bii lii lay def bii lii lay def bii lii lay def bii lii lay def boo ko defee lii ngay am effet secondaire yi lii la mën nga ci am bii jafe-jafe ko mën nga ci bañ am bii jafe-jafe waaye ci amee jafe na nga ñëwaat ba ci man léegi nag tànnal mu daal di tànn ba ko doy maanaam lu ci bëri sax dañ la naan tànnal mais ñun dañuy bañ dañ la naan tànn leen parce que nit ki li mu li li ko doy ba mu tànn ko kooku mooy mooy mooy lay gën a nangu que yow li nga ko tànnal bu tànnee ba pare la mu tànn nga daal di koy defal nga xool ko nag defal ko examen xool ba xam ndax la mu tànn moom mën na ko jël wala mënu ko jël parce que bu fekkee wérgu yaramam may ko mu jël la mu tànn it danga ko naan lii mënoo koo jël mais il faut nga changer nga tànnaat leneen ndax bii yaakaar naa ne boo ko jëlee mën na ànd ak sa wérgu yaram mm. mu tànn jël ko su ko jëlee nga jox ko rendez-vous rendez bi nga koy jëkk jox sax bu jege lay doon pour xool ba xam lim li nga ko defal ndax amu ci benn jafe mm. su ci amee jafe dafay ñëwaat nga rassuré ko bu dee jafe-jafe boo xam ne sa pas grave nga rassuré ko dalal xelam. ne ko nag del ñëw rendez-vous yii ma lay jox del ñëw ma di la xool boo fi nekkul tamit nga dem ci bérébu fajukaay bu la gën a jege. jafe-jafe boo ci am nga ñëw heure boo ko bëggee dindi nag muy tey jii nga ko def sax nga ne danga ko bëgg a dindi tey boo ñëwee ma dindi ko donc lu loo xam ne dañ la koy defal ne la par la force di nga ko yor lu loo xamante ne dañ la naan par la force di nga ko def du loo xamante ne nit buñ la ko defalee dañ la naan bul ñëwaat a sa kër yooyu yëpp dafay am mais nag. ki nga xam ne dafa ñëw jël méthode am dem yoonam réer ci nature bi gisatoo ko déggatoo ko loolu mënta nekk. Mm-hmm. léeg nga dégg ko ne damaa am yaram. Mm-hmm. surtout loolu mm-hmm. ñu bëri dañ koy kaas. ne pilule yi daf leen may yaram daf leen ëff ak yu dem noonu. xam nga loolu mën na nekk. parce que hormones yi effet secondaire yi mën nga am yaram. mais defe naa ne am na yenn yaram yoo xam ne sax soo ko amee soo ñëwee kenn du la ko jox. parce que dañ naan la lii mën na laa yokk te bu la yokkee mën na la indil jafe ci sa wér gu bu boobaa kenn du la jox méthode boobu. benn beneen bi tamit mooy jigéen ñi léeg seen xel day dal bu ñuy planning seen xel day dal ba dañuy am yaram parce que dañuy féex surtout koo xam ne da doon def def bu métti. du ñu am stress mën naa ëmb à ba pare dañuy dem commencé di liggéey seen liggéey yor seen njaay yu sew di dem di dikk nekk ci seen jàmm. ba nga bi donc mën nañoo am yaram. mais yaram bi yow xam nga xel ne nit ñaa ngi am yaram te planning ñu hmm? loo tax yaram yaram bi ci boppam ñu dañuy conseiller toujours jigéen ñi ba nga xam ne mooy kay bisitoog que planning ak que planningul ak yëpp boo ñëwee di wut di faju pour njurum doom sax am na nooy amee yaram sax dañ la naan demal nga méegi fii pour que graisse bi wër sa ovaire yi mën a wàññeeku pour ovaire yi mën a liggéey nga mën a am doom mm-hmm. xam nga ne kooku du la du la du la xiirtal ci yaram donc loo gis rek lu la ca fekk da war a delluwaat ci bérébu fajukaay bi. am na aussi des fois euh, ay témoignages yooyu dégg ñuy def bi ñuy def fi brin bi la je pense. ñu ne boo ko dindee après da am difficulté pour amaat doom ak yu demee noonu est-ce que genre information yooyu tam yeneen ciy jot. loolu sax day fekk ñu gëm rek ne xëy na beneen bi moo la tere am doom. Mm-hmm. te li ma waxoon léegi yàlla subhanahu wa taala mën kenn mënu koo tere am doom benn ñaaree ba brin bi ñaareel c'est c'est pas irréversible brin bi buñ la ko buñ la tey tey tey tey tey mën nga ko dindi tey tey tey nga ëmbaat tey comme mën nga ko dindi toog un certain temps doo ëmb mais la lay teree ëmb da ko war a dem seeti ba xam lan la parce que mën nga def brin bi ëmbuloo nga dindi ko ëmbuloo fekk booba yow yaa ngi foog ne sax béréb bi nga defoon moo la tëree ëmb mais ci diggante bi am nga fi infection boo xamante ne bi mën na créer mën na la créer problème ba doo jur doom bu boobaa da ngay delluwaat ci ko lan moo la tëree jur doom boobaa ñu faj ko saafara ko ba yàlla mais amul benn méthode boo xamante ne bii budul bi ñuy fas butitu njurukaay bi te booba sax man gis naa ko ñu fas butitu njurukaayam mu ëmbaat ci kaw fas boobu parce que yàlla subhaanahu wa taala ba mu nammee indi beneen doom gëlëmal na ko doon fas ba fasul la mu war a fas kon xam nga ne kon yàlla kenn mënu koo të donc su fekkente ne nit ki def na planning mu pare ci planning bi toog un amul doom dafa war a delluwaat ci bérébu fajukaay bi ñu xool ba xam ndax amul infection bu ko teree am doom ndax butitu njurukaayam fattul woon parce que yow boo wasinee te am nga dafa am mhm. gis nga ki bëgg a planning tey tey tey pour bëggatul am doom day def planning am tey tey dootul am doom waaye su bëggee am doom dindi planning bi danaan tey tey tey tey tey ma ëmb day bëgg a forcer am ëmb bi te loolu yàlla moo ko moo koy joxe mhm. bu fekkente ne tey tey la nga arrêté nga ne tey tey tey ma ëmb te yàlla nammagul nga ëmb du mën a nekk bu dee yàlla jeexal na say nit doo mën a ëmb loolu dafay am boo tax ma ne la gëm yàlla gi nit ñiy wax sax nekkul na mu war a nekk parce que bu ñu ko gëmoon bàyyeekul lépp xam ne moom kàttanam mën na boo paree nga am kon doo doo nekk di wax naan li ma defoon moo tax awma wala ndàngam nangam mm-hmm. te yàlla daf ñu digal nañu noppalu nañu faju nañu def noppalu ñaari at yomb mm-hmm. fukki at nag kooku noppalootu laa ah, arrêté. tey ci nga ki nga xam ne par exemple mu ngi soog a dugg ci sëy amagul doom dugg rek tak mu def planning planification familiale kooku est-ce que du am ay risque ci ci moom. comme ñu naan par exemple damay foo noos ba ci kanam ak genre yooyu. gaw ma ne dina am risque. Mm-hmm. mais dafa am loo xamante ne lii. nit ki bu ñu demee ànd ceeg borom këram am nga kiy soog a sëy moom damaa ragal ne xanaa du dem rek di def euh, planning am ne bëggut am doom te waxtaanu ceeg ki muy soog a sëy mm-hmm. donc su ci moom suñ ci waxtaanee ne dañoo bëgg a noppal loolu amul problème. Ah, am na ay jigéen yu koy def en cachette tamit. waaw mais man du ma ko nangu. Mm. parce que xam nga li tax doo ko nangu mooy bu ci amee problème da danaan planning bi la te xam nga ki nga xam ne mi ngi soog a sëy elle n'a pas encore fait ses preuves xamagul ndax dina am wala du am di. Mm. yow xamagoo ndax di nga am wala doo am nga ne naa arrêté naa naa naa moytu mais soo paree nag amuloo nga ne. li ma doon def moo ma teree am alors que nekk na sax ne yow mënoo woon a am. Mm-hmm. peut-être jëkkër ji amu woon sax spermatozoïde azoospermie lay def xam nga loolu mën na nekk. jigéen ji mën na am dafa def euh, kii obstruction tubaire donc maanaam ay ay butit ñu kaayam fatt na te yëgu ko. Mm-hmm. mais xamagu ci dara parce que mu ngi soog a sëy. Mm-hmm. mën na am ay fibro yoo xamante ne mën na ko teree ëmb loolu rek day am. léegi nag moom mu tëb rek ne dafay planning bu planningee nag bu toogee ba mu war a am nag mu arrêté ne léegi nag damaa bëgg a am. amul mu forcé ne planning bi la mel na yow yaay jox sa bopp te yàlla moo lay jox yàlla mi lay jox heure bu ko nammee la la koy jox. Euh, mbokk yéen a ngi déglu ba tey euh, seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñu ci dalal euh, madame Rokhaya Thiam nekk sage-femme bokk ci cadre de religieux pour la santé et le développement tey ñuy waxtaanee wàllu ARNEF di planification familiale ñu gis ne Sénégal nag am na ay jéego yoo xam ne def na ko ci wàllu planification familiale bu ñu xoolee tey il y a cela 20 ans ak tey jii am na loo xam ne daal bëri na ay avancées tey je pense que bu ma juumul nous sommes à cent de taux de prévalence ci wàllu taux d'utilisation bi wàllu euh, planification familiale donc tey mu mel ni ñëpp jàpp nañ ci te aussi jigéen ñi ñu ngi gën di di yeewu daal ci ci wàllu woowu. ah jigéen ñi dañ yeewu ndax dañoo sonn. Mm. man nee naa góor gi naan jigéen ñi bu ñu plané kooko bëgg a rey nit ñi dañuy bokk seen jabari seen ginnaaw ñu lu seen jabari wax ñu def ko daal ni jabari jàmbur yi defal seen i vidéo seen nii naan jabari jàmbur jur leen ba dee. jigéen ñi nag léegi yeewu nañu parce que ñoom tamit dañoo bëgg a noppalu bëgg nañu aafee mënoo nekk di jur ba tas loolu yàlla sant ko teel doo leen mën a toppatoo doo leen mën a yóbbu ñu jàngi doo leen mën a defal dara taloo dara dootoo sol mbubb dootoo sol dal yaa ngi dang dangi dang dang dang dang dang dang ba dee te kat ma wax leen nag gis nga ñun sage-femme yi du ñu ay criminel mm-hmm. du ñu ay criminel du ñu ay bandi parce que ñii wax naan jigéen sage-femme bi dañoo bëgg a njur yeeg dañoo bëgga def nii ñoom xamuñu ne sage-femme tey ji bu njur mi arrêté sage-femme dootul am ñun bu ñu sañoon nit ñi di jur mais nag nañu jur njur mu sell njur mu normal njur moo xamante ne ñun dañuy kontaan bu ñu amee seen doom indil ñu leen ñu kontaan man tey ji am na xale yoo xamante ne yi maa ngi leen di defal seen visit seen yaay yi ba mu leen ëmbee maa leen visite te loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ñun sage-femme on n'est pas des criminels. Mm. ba ñu naan ñun méthodes yi ñuy joxe dañuy joxe euh, dañuy joxe cancer méthodes yi ñuy te yow est-ce que euh, xam nga ne pilule bii ngay jël nii. Mm. dafay aar jigéen ji lu ci bëri ci cancer de l'ovaire te cancer de l'ovaire mooy cancer jigéen bi gën a soxal ci cancer bi gën a naqaree faj te pilule def ko ci aar. Mm. nga tëb nag nga ne li ñuy joxe yépp day joxe cancer day joxe diabète day def ni góor ñi diabète dañoo balaa ni góor ñi cancer dañoo planique jigéen ñi cancer te te xale jigéen yi nga xam ne dañuy def sa cancer du sein te fekk boobu amaguñu sax kii ñooñ ñooñ dañoo planique donc moi je pense que nit ñi il est il que ñu revenir à la raison xam ne ñun ay fajkat lañu dañuy faj parce que yàlla moo dëxëñ mbóot ci ñun ñun mënuñoo wéral mais yàlla moo ñu jox mbóot moom mbóot mi mu ñu jox mooy yéen li mbóot mi nga xam ne moom moo war a wéral mu jox ñu ko ni ñu dimbale leen faj kon nag ñun dañ cee war a sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. te di ci def li nga xamante ne moom la ñu sant waaye nekkuñu fi pour rey nit ñi. Mm-hmm. ñu gis ne effort yi Sénégal def si wàllu euh, planification tax na ba tey ay réew dañuy ñëw di imprégné wu nit ñi ni ñuy liggéeyee fii ci ci côté boobu euh, may ngi fàttali bu yàggul je pense que ci mois bi passé la am na délégation guinéenne bu ñëwoon. tase woon nañ fa d'ailleurs parce que maa ko doon couvrir ñu ñëwoon ñoom it pour euh, jéem a xool daal. nu mën a échanger ak waa waa Sénégal. loolu Sénégal du planning rek. Mm. ci faj ci faj du wax ne on est les mm. waaye ci meilleurs yi lañ bokk. Mm. parce que lu bëri ci Sénégal gi lañ koy jëlee pour yóbbu ko feneen. yow délégation yenn bi nga gis mais y a d'autres délégations qui sont venues. te yenn boobu ñoom man dem naa Guinée deux fois. ànd ak waa CRSD ñu dem fa. pour que ñoom ñu ne nañ ñëw ñun wax leen ñun ni ñuy liggéeyee ci wàllu PF parce que ñun ils ont des problème ñun nag CRSD suñu slogan mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci buumu sëy te nañu noppalu ñaari at ñun loolu mooy suñu suñu suñuy war ku nekkul ci buumu sëy bokk waroo ëmb sax bay nef ñu loolu suñu yoon nekku ci ñu daal ki nekk ci buumu sëy la ñuy wax ak it tamit on est contre la limitation des naissances mm. arrêté njur waxuñu ko ñun daal loolu la ñuy wax ñun en tant que CRSD. Mm-hmm. loolu la ñuy jàppale ministère de la santé. Mm-hmm. li nga wax ni euh, dafa bokkoon ci question yi mais bon xaw nga ko avant euh, indi nga ko un peu euh, anticiper nga ko mooy accès méthode PF yi au jeunes parce que. de plus en plus ñu wax koo ñàkk koo wax xale moom macha allah dañ ci yëngu bu baax Euh, centre ado yeeg yooyu noonu euh, jàppal baay ñoom ñu nga ca léegi tey euh, est-ce que foofu tam du nekk problématique est-ce que du jox aussi raison parfois ñu naan peut-être méthode contraceptive yi day inciter entre guillemets à la débauche ak yooyu. ñooñ sax mënuñoo am raison ndaxte dañoo yarul seeni doom. Mm. gis nga gone gu yarul. Mm. mooy dem di planning. gone gu ñu xamalul lañ la war a xamal nga yem si sa peggum ndey mm. yow yaay dem di planning ndax yow yaay dem di mooy. di taxawaalu ba planning dala ca fekk ñun def nañ tournée boo xamante ne bi veuve ab veuve ñëw na ci sage femme di ko demander une méthode koo xam ne mu ngi tënji simmeegul di laaj méthode donc ñun mënuñoo yar ku nekk sa doom mënuñu la koo yaral nit ñi ñoo war a yar seen doom yi téye xale bu jigéen bu ñëwee ci sage femme sëyul ne dafa bugg a planning sage femme bi li muy jëkk a def mooy yedd ko yee ko xamal ko abstinence abstinence la ñu wax dañ ne nañu téye seen bopp ba seen heure sëy jot ñu sëy du tee nag ñu xamal leen seen yaram nu muy doxee xale bi buy gis règle war naa xam a tax muy gis règle règle naka lay doxee bu gisee règle lan moo ko ci mën a fekk bu sëyee lan moo ko ci mën a fekk bu amee ay problème lan moo ko ci mën a fekk parce que boo ko bàyyee tamit même bu fekkente ne yow da ko jox méthode planning muy planning tam mën na ci jële jàngoro mën na def si sida mën na def hépatite mën na am ay feebar yoo xamante ne la nga doon daw pour ndeete da koy daal di dal mm-hmm. donc ñun suñu rôle mooy ñu yedd leen waxtaan ak ñoom ba loolu bañ leen a dal mais nag yaay yi ak baay yi ñoo war a yar seen doom yi seen biir kër yi ba du ñu génn di wuti loolu ci biti. mais tey jii en tant que prestateur de service yéen xale boobu ñëw na bëgg na méthode yedd ngeen ko bëggul dégg kooku est-ce que tey da ngeen koy quand même euh, jox service boobu muy laaj. man de li may def laay wax xaw ma nag lu keneen di def man ki ñëw ci man. ne dafa soxla méthode te sëyul li may def mooy yedd la une première fois nga dem su la loolu doyalee nga ñëwaat j'appelle ta maman. Mm-hmm. parce que mineur la mineur man du ma ko jox benn méthode naan ko jëlal méthode bi nga dem defi ji planification pour nga yàqu je ne le fais pas. Mm-hmm. parce que bu doon sama doom la du ma ko ko jox doom ji ma jur. boo amee 12 ans wala mu am 13 ans wala 14 ans wala 18 ans sax war a jàng naan ma jox ma méthode parce que damaa bëgg a dem mooy yi ma ko ko jox. Mm-hmm. li ma mën mooy yedd wax juruma nag. su ma yéendee wax defuloo man man structure privée laa nekk. je ne suis pas dans structure boo xamante ne bii euh, damay damay euh, def loo xamante ne nii sama conscience mayu ma ko. te defe naa ni nekk ci structure publique yi loolu la ñuy def sa man mi nekk ci privé maa ko mën a def parce que ñi nekk ci publique yi nga xam ne dañoo tënku ci li nga xam ne ministère de la santé moom la leen sant ñun tamit ñu tënku ci en tant que structure privée. dañuy waxtaan nag danañ waxtaan dinañ wax a wax a wax ba mar danañ woo parents yi di wax ak ñoom dinañ daje xale yi di wax ak ñoom xale bi nag kii planning da ngeen di réere mbir ne du ñëw sax ci structure de santé mm-hmm. mooy dem di ko lijjantil boppam ca mbedd ma di ko def waaye ñun ñii sage-femme yi lañ koy yan mais ñiy def seen méthode yooyu ñiy sëyul di ko def ak xale yi nga xamante ne sëyu ñu di ko def duñ dem si sage-femme yi duñ dem ci structure publique duñ dem ci structure privée yi mais dañuy dem di ko jënd ci mbedd mi te ku ne xam ne ne garab yi ngi ci mbedd mi ku ko bëgg a jënd jënd te garab yooyu nag mooy Mmh. parce que am na benn méthode boo xam ne benn période defoon na fi nekkoon na fi à la mode de léegi sax déggatuma ko wala peut-être maa ko déggatul mooy pilule du lendemain boobu gars yi dañ ci doon abusé d'une manière boo xam ne c'était quand même extraordinaire. parce que xamuñu. Mmh. parce que xamuñu parce que pilule du lendemain en général ñi nga xam ne dañ leen violé buñ la violé ñu indi la consultation ñu violé ñu bañ ëmb fekk la ci. Mmh. ñu defal la plus de lendemain pour que xale bi bon bon mu bañ a ëmb le ñuy def investigation xool ndax am na ci feebar bu ko ci dal wala dalu ko ci wala loolu. Mm. mais plus de lendemain du pour koo xamante ne kii dangaa bëgg a sëy tey nga dem sëy dem jël sa plus de lendemain suba nga dem sëyaat jël plus de lendemain alors que plus de lendemain c'est fortement dosé. Mm. kooku mën na la indil sax ay jafe-jafe indi problème ñun on conseille pas ça. Mm. mais ñooy du ñu ngi neenu wax de dañ ko doon nekkoon na à la mode dañ ko doon dem di ko jëndali seen bopp. loolu la rek. dañ ko doon dund seen bopp moom. Ah, kon xam nga demuñu si structure de santé ndax buñ fa demee dañ leen di yedd. te xale ñi dañuy ragal parce que da ngay dégg des fois ay jeunes euh, yu naan woy dama dem sage-femme bi bu ma ñëwee laaj ko mu xool ma d'une manière xaw ma kii ñoom des fois loolu dañuy jàpp ne peut dañ leen di beddi wala genre. man ne du ma bedd kenn mais dinaa leen yedd quand même yar leen parce que loolu mooy sama warugar. man li nga xam ne bu doon sama doom la bu teewee dinaa ko loolu laay def te ragal naa ne sage yëpp loolu la ñuy def. parce que sage femme moom nday la avant tout te kii aw doom bii juddu defe naa ne am na fibre maternelle. Euh, tey am na aussi ay méthodes naturelles yoo xam ne am na au delà des méthodes yoo xam ne yi ñu doon wax fii léegi méthodes naturelles yi donc méthode naturelle yi est-ce que déjà euh, am na day am ay résultat est-ce que c'est efficace. am na méthode naturelle yoo xam ne boo demee hôpital la daan teg am na benn sœur boo xam ne méthode naturelle rek lay kii te man boobu ba ma nekkee élève sage femme ba léegi maa ngi ko gis muy insisté métode naturelle yooyu te même sur le plan naturel tam def ciy traité ay infertilité ñi nga xam ne dañu waroon am doom te amuñu doom. parce que mais méthode la yoo xamante ne yi c'est l'affaire du couple du loo xam ne jigéen ji rek moo koy jël mais jigéen ji ak góor gi ñoo koy bokk. parce que méthode la boo xamante ne da am moment yooyu war a sëy ak moment yooyu warul sëy loolu su fekkente ne àndoo seeg sa borom kër du mën a nekk. donc ay méthode auto-observation ak méthode de la température ak méthode des jours fixes yooyu yëpp dafa am. Mm-hmm. te téere neef sax am na xam nga am na téere neef barki démb rek bi ma jógee fu ñu imaam bañ fa fekk am na sax euh, médaille d'honneur ci dimbali gi muy jàppale waa sante moom ci boppam nee ma man damay bind téere neef. damay bind téere neef jox la ko bu amee boo ko yoree ba mu am ñaari at nga dindi ko denc nga mën a ëmbaat heure boo wasinee nga jëlaat ko. nga jëlaat ko takk waaw te xam nga yooyu tamit ay méthodes la yoo xamante ne yi ñu ngi prouver seen efficacité. Mm. waaw mais nag am na ay méthodes naturelles naturelle bi méthode euh, modèle méthode modèle yi daa gën a noppale. xam nga nga nekk foofu di compter tey laa war a sëy tey suba waruma sëy sa jëkkër ñëw rakkaaju bëgg a sëy nga ne ko ah déet kat mënoo sëy kat ndax nangam nangam jëlal préservatif mu ne moom nakkooru du jël préservatif yooyu yëpp ay jafe-jafe la. parce mm. que booy wala nga def sa implant tranquillement wala sa DU doo am yooyu wax donc euh, est un peu contraignant mm-hmm. mais nag c' est des méthodes très très efficaces mm-hmm. waaw tamit mm-hmm. loolu mooy seen effet secondaire. <laughs> bu nekk ak effet secondaire ah, euh, donc li nga xam ne mooy tournée bi nga doon amal parce que euh, def nga tournée au niveau de Kédougou je pense ak Tamba n'est-ce pas léegi bi nga demee ci tournée bi il s'agissait de quoi en fait lan ngeen fa doon def. waaw ñun xam nga. ak CRSD dañu initier benn plan boo xamante ne bii dafa am euh, benn euh, kii argumentaire religieux sur l' espacement des naissances. Mm. boo xamante ni imam Moustapha Gueye ak imam Taxir Kan ñu ko defoon yàgg na. Mm. bi CRSD ñëwee ñoom dañ ko moolaat defar ko ak avec l' appui de ba tey imam Moustapha Gueye ak euh, imam Taxir Kan léegi nag argumentaire religieux boobu kilifa diine yu bëri wax nañ ci. sëñ Abdoul Aziz Sy Junior wax na ci ci planification familiale organisation de la famille loolu la wax euh, oustaz Baram Diop wax na ci imaam euh, Cheikh Tidiane ah euh, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass wax na ci. Mhm. donc ñu bëri kilifa diine yu bëri wax nañ ci biir argumentaire religieux boobu. wax nañ tam ñi nga xam ne dañoo ànd ak planning lan mooy seen raison ñu ci àndul joxe nañ tam ay aaya ak ay hadis yoo xamante ne mi ngi ci. léegi nag boobu nag la ñuy jël nag ñun di ci former personnel de santé bi ak Euh, bàjjenu gox yi ak ay religieux religieux yi ustaas yooyu di leen ko waan wala ne lii mi ngi fii la leen lislaam yemloo yu yem fa sage-femme bi itam am tuuti bagage ci li nga xamante ne fa la ko lislaam yemloo ci planification familiale ba nga xam ne bu keneen ñëwee di ko wax moom mu mën a xam lan la mën a tontu ak fan la mën a yem waaw daal loolu mooy suñu liggéey formé lañ ci ay kii yu bëree bëri ay bàjjenu gox dans toutes les régions dañuy dem gis bàjjenu gox yi gis personnel de santé bi toog waxtaan ak ñoom ci argumentaire religieux ñoom tam ñu posé ay question question yoo xamante ne yi moom la ñuy jànkonteel si waaye diine ko defee nitu diine yi nekk foofu parce que chaque fois bu ñuy dem dañuy ànd ak imam dañuy ànd ak imaam imaam bi su ko defee mu wax leen lii la leen seen diine may lu ngeen war a def ak lii la ngeen war a def. Mm-hmm. parce que quand même euh, bàjjanu gox yi gis nañ ne am na lu bëri loo xam ne indi nañ ko comme apport ci euh, système de santé bi parce que ñoom ñooy proximité. ak euh, askan waaw bàjjanu gox yi ñun moom dañ leen di wax mention spéciale d'une sage-femme parce que ñu ngi jàppale bu baax a baax man mii man fi ma nekk ni structure privée mais am na bàjjanu gox bu ñu ma boo xamante ne bii su ma amee perte de vue sax mën naa ko dem woowi ne ko seetal ma diw. donc bàjjenu gox yi ñoom kenn mënu leen fay ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla dimbale leen bañ dem boog sax ñu am ay salaire mm. parce que vraiment li ñuy liggéey moom kenn liggéeyu ko fi ci Sénégal mm. parce que yow bu fekkee ne da nga doon gis nit mu réer la te mu wóor ne wér gu yaramam bi kii waroon nga ko toppatoo mm. boo ko waxee bàjjenu gox mu dem wërali la ko su fekkee ne dañu am jafe-jafe seen borom kër yi boo ko waxee bàjjen gox bi mu dem wërali la bàjjen gox bi mu see ci quartier bi ko xam ne dafa am jafe-jafe dina ñëw ne la kii kat dafa am jafe-jafe ndax mën ngeen koo dimbale mu def nangam ak nangam même bu fekkente ne amul lu mu fayee sax ñu dimbale ko defal ko mm. kon nag bàjjen gox yi ñoom li ñuy def ci réew mi nii vraiment ñun daal ñu ngi leen di ñaanal daal yal na leen yàlla yokk te ñu jox leen nag loo xamante ne ni ay salaire yu baax wala ay motivation yu baax ñu mën cee kii ah, mi de diggoon na leen ah war na koo def nag ndaxte bàjjen gox yi li ñuy liggéey kenn liggéeyu ko fi ah. ñun sage-femme yi daal ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax xuloo yee sax amatul <laughs> ndax ñoom ñoo ñooy tampon yi <laughs> absolument euh, ñu gis ne euh, madame Thiam li nga xam ne moom mooy viol yéeg yooyu bari na léegi torop maanaam daal ñaawteef fi nga xam ne ñu ngi am ci askan bi lu ci bëri détournement de mineurs yeeg yu demee noonu ñu gis ne ba tey am na dafa mel ni ay famille yoo xam ne. dañuy entretenir tabou seen diggante ak seen i doom ba des fois ay jafe-jafe di leen dal ci mbedd mi ak yooyu euh, tey jii li nga xam ne moom mooy sujet tabou yi ci wàllu sexualité taxoon na ba ñu neewoon sax benn moment éducation sexuelle à ak yooyu bon mu juróon un peu coow et ñu teg ko ci suuf mais est-ce que tey yow yaakaaroo ne loolu dina doon lu am lu am solo. xam nga bu ñu waxee sexe rek nit ñi tiit. Mm. bu ne éducation sexuelle nit ñi tiit ne dañuy jël xale yi di leen insister ci ci mbon. surtout que am na ñoo xamante ne moom dañ fay nekk rek pour xëpp kaal ci mbir yi mais man defe naa ne éducation sexuelle lu am solo la ndax boo yoree sa doom si sa man maa ngi fàttaliku suñu kër xale bu fa gisoon mbaax sama maam daf lay woo ne mu jël inde dëpp ko ne la konteel nga konte bëti inde mu ne la lii boo kontee juróom juróomi doom ngay am boo compté juróom benn doom juróom juróom benni bët juróom benn bët ba pare nel na gis nga boo bëree góor sax da ngay ëmb man maa ngi fàttaliku ma ne ko lu tax boo bëree góor ëmb ndaxte comme boobu ba léegi waxoo ma ko tey ma gis règle nga wax ko mu ne ma parce que soo gisee règle ndax ne ne la ni mu koy waxee sax danaa la sa biir ubbeeku na góor moom boo bëreek moom rek su la laalee rek da ngay daal di ëmb kon xam nga loolu éducation sexuelle la wax la ne la na nga moytu xale góor yi donc mu ngi lay incité ci abstinence wax la ne la nii nga war a doxee nii nga war a defee boo jubee ay xale góor li nga war a def bul naa ni ataaya fenn yooyu yëpp dañ la koy wax dañ la daal man ci laa du ma naan ataaya parce que ba may jànq dañ maa tere woon naan ataaya ba du naan ataaya parce que danaan la booba ñu ngi xalaat nga dem sax ci ay woyu ñu drogué la def ci ataaya ja sax eh, eh, egg ci yow dégg nga lañ lay wax nii ngay woddoo dee takk sa sër bi ba mu dëgër bul xaawee ko si sa kanam waajur sax sa bàyyi sax dañ lay wax ne sax bul tëdd ci wetam wala bul tëdd ci poojam boo xasee ba yooyu yëpp dañ la koy tere donc loolu éducation sexuelle la seulement affaire yi moo changé que nit ñi dootuñu def éducation sexuelle seen kër yi parce que talatuñu te jigéen ñi talatuñu dara ak whatsapp talatuñu dara ak yi léegi téléphone yi mooy yee xale yi xale yi tam ci téléphone bi lañuy nekk lu baax a ngi ci lu bon a ngi si soo jëlee lu bon ci li ngay daw boo jëlee lu baax dem ci lu baax li léegi nag kenn talatul kenn da ngay gis ku wàcc nekk ci këram li muy jëkk a def mooy yootu téléphone am di xool di audio di def nii doom ja itam nga ci téléphone ba fee. donc yow amatoo jot sax. communication dafa fan nga yend woon loo def tey lan nga nekkee woon lan la. yaa ngi gis say règle yaa ngi am ay douleur yaa ngi am ay perte sa kanam da ngi xesan bu xesanee lii la bu liyee lii la mais yooyu yëpp defatuñ ko c'est ça problème mais loolu rek mooy éducation sexuelle yee xale yi pour ñu bañ a yàqu yee xale yi pour ñu bañ a dem ci loo xamante ne lii da indi indil loraange. Mm. mais éducation sexuelle du wax xale bi demal nga def ci sa sexe boo biiree nga def nii lool du loolu. Mm. c'est pas ça euh, du loolu moo tax sax ñi ñiy wax loolu jóg. li leen tax a jóg mooy aar gone yi ba du ñu am jafe-jafe. Mm, parce xale yi moom boo ko boo waxee ñoom boo waxul ak ñoom comme li nga wax. léegi ñu ngi ci technologie yi. Euh, loo bëgg a gis gis ko. gis ko mais nag la ngay gis est que dana la jariñ wala du la jëriñ. Mm. ku ci nekk ak li muy tibb mais boo ko wanee yoon bi nga xam ne bu bu demee ci technologie bi sax buy tibb tibb lu baax. Mm. loolu mooy mooy mooy éducation bi bi gën. waaw mhm. parce que euh, aussi parfois ñu gis tamit ay méthodes yaru yarin yoo xam ne aussi baaxul. tout le temps ngay tere nit ki bul def lii bul def lii te te doo ko expliquer doo waxtaan ak moom. bu la gisul après bu génnee ci bi biti def. lu ko nekk sa doom téléphone ne ko doo yor téléphone. Mhm. te yow téléphone bi. boo ko ko joxoon wax ko li mu ci war a def ak li mu ci war a kii du doon problème mhm. mais day dem ci téléphone yi copine am yi di def la muy def te yow doo ko yëg te yow boo ko soxlaa sax doo ko jot donc yooyu yëpp dafay am. donc moi je pense que war nañu mën a yee xale yi bu baax a baax te cadre religieux mi ngi ci liggéey di ci waxtaan te xam naa ne dinañu am volet boo xamante ne bii c'est pour l'éducation des jeunes fii loolu Adja Aram Seck mi ngi ciy liggéey pour euh, moom inspectrice d'académie la à la retraite mais mi ngi ciy liggéey bu baax a baax. pour ñu def ay programme euh, d'éducation kii euh, à la vie familiale des jeunes filles. Mhm. voilà de dernier point bi ñuy abordé euh, parce que mënuñu def émission santé te waxuñu ci parce que fu mu toll moom mooy actualité nekk pandémie euh, nekk loo xam ne aussi fu mu toll àdduna bi yëpp la la. maanaam ku ci ne daal war nga ci mën a daal taxaw parce que muy euh, feebaru Covid 19 bi coronavirus bi am na sa beneen cas bu am donc tey mu mel ni euh, feebar boobu daal parce que relâchement amoon na bi bi premier cas bi tanee rek relâchement amoon na raxasu beeg yooyu noonu yëpp <laughs> da dakk mais gars yi jëlaat nañ ko démb lañ commencé di jëndaat mooy li war <laughs> di jëndaat gel yi mooy li war man daal je pense mm. nit ku nekk dangaa war a fagaru te gis nga li oustaz Barab Diop doon wax nee na yàlla ubbi àjjana ne la dugal seytaane ñëw mun a ko dugal nga nekk fa di lijjanti lu tax yàlla di wax seytaane dugal bu bunt ba ne ràpp tëj yow doo dugg keneen du dugg loolu moo am Sénégal. Mm. Sénégal dañuy wax wax yoo xamante ne yii du sax jëriñ nit ñi mm. mais moi je pense que. Euh, Covid 19 bi réalité la man damay dégg ku naan lii amut. waaw ñu koy wax. am na ñu ne amut dañ koo inventé même si daal dañ koy inventé nangam nangam waaye inventé nañu wala inventé ñu yow tee nga aaru rek. aar sa njaboot aar sa bopp ba nga ba ba problème bañ laa dal ndaxte lii c'est réalité. xëy na ñoom ñu nekk ci biti ñoo ko xamul waaye ñun ñu nekk ci santé bi xam nañ ne c'est réalité te mag mu jaaxaan nag na gisuma jant bi kenn mënu ci yow dara. te ñooñu nag ñooñu ñooy les bombes bomb yi ñooñu la te du ñu bàyyi kenn mu aaru su ko defee nag bu problème amee ñoom ñoo koy tasaare. moi pense sax ñoom ñu ngi aar seen bopp. et di waaw ba pare di tere nit ñi aar waaw waaw moi je pense que daal nit nañu góorgóorlu nañu fagaru. te nañu aaru di déglu way médecine yi waa santé li ñuy wax ñu di ko def. Mm. te aar sa bopp sax wax dëgg yàlla lislaam ko gën a sandaane moom leen a jàppal juróomi yoon. balaa ngay julli toujours jàppal raxasal say loxo raxasal sa tànk raxasal sa di kooku bëgg na nga set. Mhm. set moom lislaam sax da koo digle amul benn religion boo xam ne diglewul set kon nag nit ñi dañoo war a góorgóorlu te jéem a set waaye li kii doon wax rek jigéen ju ne ñàgg këram ne ñàgg yaramam ne ñàgg léppam ne ñàgg mënta am cet mënta am wér kon nag ñun jigéen ñi surtout loolu ñun ñii la war ñun ñoo war a góorgóorlu ba xale yi di góor góorlu ci seen set ñun tamit ñuy góorgóorlu ci suñu seti biir kër yi ak suñu biir néeg yi suñu waañ yi voilà pour terminer émission bi peut-être nga wax ci lan mooy seen perspective yéen cadre religieux pour la santé et le développement pour wàllu planification familiale bi. wax naa ko léegi suñu perspective mooy bëgg nañ daal bépp bàjjenu gox ci réew mi am xam-xam. xam lan la espacement des naissances lan la ci religion bi wax. Mm-hmm. religion yëpp la nag ndaxte ñun cadre religieux euh, luthériens yi ñu ngi ci biir catholique yi ñu ngi biir ñëpp a ngi ci biir. gisoon naa abe ci. waaw donc voilà donc ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. Euh, beneen bi mooy li ma la waxoon léegi mooy éducation des jeunes fii mm-hmm. parce que gis nañ ne réew mi déperdition yi bari na yàqute gi bari na léegi nag euh, danañ jublu tamit ci waxtaan ak xale yu jigéen yi ndaka la ñu mën a defee lan la lislaam santaane pour que ñoom ñu mën a fegu daal. Mm-hmm. waaw loolu moom ci perspective yi la bokk. d'accord waaw. Mm-hmm. Euh, si dernier tàggoo nga tàggoo xanaa di la gërëm rek Oulimata ci occasion bii nga ñu may pour ñu mën a waxtaan ak askan wi mm-hmm. ndax loolu tam am na solo euh, di wax rek ne bu ci njuum te amee ci man la su fekkente ne njub na tamit ci yàlla la du ci man kon nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax. di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu lay remercier bu baax a baax euh, tey jii euh, ñu doon dalal ki nga xam ne moom mooy madame Rokhaya Thiam nekk sage-femme bokk ci cadre des religieux pour la santé et le développement tey ñu doon waxtaanee wàllu planification familiale di ARNEF euh, yéen a ngi doon déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 mën ngeen retrouver émission bi tamit ci 3W point Rewmi point com ak itamit ci suñu chaîne YouTube di Rewmi officiel.